c'est-à-dire que on voyait venir. Mhm. menace bi yàgg de part et d'autre peut-être que Ukraine prétexte la. prétexte la Russie parce que boo fàttali ko ci élection Donald Trump bi. Mhm. les Américains ont beaucoup reproché à la Russie d'ingérence. Mhm. ak de de manipulation. dégg naa tamit Emmanuel Macron mu ne élection yii ñu jëm. Russie dina dina am ay tentatives d'ingérence yu mu def peut-être que am candidat boo seetloo aujourd'hui l'évolution de Éric Zemmour. da nga gis tout le temps il de Poutine. waaw waaw condamné mm. en fait il condamne la guerre. en ah. fait il condamne la guerre. mais lui-même mais lui-même dit que bés bu ah. arrivé woon au pouvoir par extraordinaire peut-être day génn oto. donc le système intégré là il le récuse. et mm. aujourd'hui c'est le système intégré de euh, euh, européen. Mm. moom moo am problème ak ak li nga xamante ni moom la Russie bëgg par rapport à ses à ses à ses intérêts et ses ambitions. parce que tey jii waa ji da leen wax lu leer mooy Ukraine mënu ma la bàyyi OTAN di ñëw. ngay bokk ah OTAN ah moo tax le le jeune la président ukrainien. Hmm. nee na OTAN jox leen ma raison Volodymyr Zelensky. nee na leen jox leen ma raison pour ma mën a adhérer à l'OTAN. Hmm. tey am ngeen opportunité pour jox ma raison ou pas. Hmm. maintenant. il défend ses intérêts et ses intérêts vont au-delà de ses frontières. loolu aussi c'est une réalité parce que ñoom les Européens aussi sont très condescendants de de de de Poutine. Des parce Européens de l'Est. les Européens de l'Est ah, parce que xëy na xam nga c'est c'est un ancien homme de rang aussi bokkoon KGB. Mhm. nekk soldat. et souvent damay wax ne damay wax ne souvent nañu def attention sur les forces de défense et de sécurité qui arrivent au pouvoir parce que d'habitude euh, li seen patriotisme. dafa am jaar-jaar boo xam moom moo ko expliqué le rapport qu'ils ont avec le drapeau national mën na am ak défendre l'intégrité du territoire mën na wuute ak civil bi parce que kële dafa am lu koy justifier dañ ko ci yar nampatal ko ci mu màgg ci jël risque yoo xamante ni yow jëluloo ko bon je le dis pas parce que le colonel est à côté de moi mais <laughs> je recuse waaw mais mais pas d'accord mais mais souvent quand ils arrivent au pouvoir da gis ne intégrité territoriale bi mën nañ ko bañ a négocier seen bëgg tamit mën nañ ko wane peut-être que ba def ci sax ay excès mais bref c'est un autre débat mais li ma bëgg a wax nii par rapport ak euh, euh, euh, la guerre la bi nga xamante ni moom moo am ça allait venir d'un moom parce que il fallait que Trump amoon na kii Poutine amoon na obsession wane ce qu'il vaut en réalité et que le centre de gravité bi ñu yëg ne aussi dafay changer te Macron wax ko ko par rapport à l'hégémonie occidentale loolu aussi il fallait que moom mu affirmer ko du côté soit moom soit Chine

agir mhm. dans cette guerre là ni directement ni indirectement on va subir peut-être mais li ma bëgg wax mooy dafa am lu feeñ ci guerre bi mooy que ne aujourd'hui il y a plus de ces dernières années mhm. où Poutine bokk na ci liggéey bi mu gën a def mooy xeex indépendance bi amoon ak digganteem ak yeneen réew yi par rapport a à, à, à l'alimentation c'est-à-dire que cette euh, indépendance du point de vue alimentaire daf ko xeex ba am ko téye ko parce que xam na ne bu guerre bi amoon tey ji te sur le plan euh, alimentaire amul indépendance mais dafay subir les contre-coups mhm. donc pour man bokk na ci li liñ ci war a jàngee au même titre que le coronavirus qu'on a traversé mooy que am na indépendance yoo xam ak souveraineté yoo xamante ni il faut se parer à toute éventualité parce que tout pari bi aujourd'hui la situation bi am ni Mali mais peut-être que xaaruñu ko woon te xamuñu fan la jëm. Mhm. donc anticipation boobu daal ça m'intéresse beaucoup maintenant. et justement Pape Djibril dafa mel ni Mali moom. farine Russie ba pare. bu dee far je peux a ainsi. baal ma une minute Pape Mali moom teel na farine. une minute une minute oui. Euh, si on prend l'exemple du Sénégal et de la Gambie.